yéeg si nañ ci fas yéene dalal euh, jaamu séeréer Seydina Omar Ba ñu ngi lay nuyu. kii naka suba si. waaw ñu ngi sant alhamdulilah. ñu xëyee. wax ci wàllu collecte parrainage bi la wax tamit ci jeu de casse-casse gi xam moo ci am mu soxal candidat yi am yoo xam ne amuñu ay jafe-jafe ngir am parrain muy si mel waa coalition Benno Bokk Yaakaar waa Taxawu Sénégal ak ñi nga xam ni euh, ñoom ñoo di euh, ñoom ñooy maanaam mooy ak waa Gëm Sa Bopp Gëm Seen mm-hmm. am na ci ay candidats yoo xam ne amee Euh, lambigolo gi ci euh, noonu la ko yéen kaay gii di Walf Quotidien xëy fësal leen itamit loo xam ne yéen kaay euh, la presse ne Euh, Moussa Bocar Thiam yooyu na yàbbi jëmale ko ci app euh, fonds d'appui à la presse euh, moom nag nee nguurug Sénégal yoonam nekkul ci mbir moomu le nañ jàpp ne kon état bu Sénégal dafa tax aw commission commission boobu nag mooy saytu xool ñan la war a jox état à la presse ba am déet kon mbir yi bu amee ci ñoom la waaye ñoom seen yoon nekku si noonu la ko yéen gi di Falla Fleur bi ñu la ko source yéen kaay gi di source xëyee dellu ci Ousmane nga xam moo di waa Sénat di xaalis ñoom indi ci ay leeral gars yi nag nee nañ jot nañu recours boobule maanaam jot nañu sax euh, kayitu clamé nag la ñuy xaar mooy waa Sénat statué ñoom nag nee nañ daañu amal ab lépp daal euh, lépp loo xam dogal la bu boobaa ko bind ci bataaxal jébbal ko ko yéen kaay gii di source ak xëy yoor yoor ne FMI jël na dogal ne dafay lebal nguuru Sénégal lu ci tolloog téeméer ak juróom-benn fukk juróom-benn milliard i cadre di sàkkoon ñu wax leen xaalis boobu la ci yan condition lañ ko war a décaissé noonu la ko yéen kaay ngir yor yor euh, xëy fësale njabootu détenu politique yi tey ji lay gën a taxaw ngir ñu bàyyi seen natt seen seen doom yi tëj ci kaso bi ne daal dañoo fas yéene takku taxaw jàmmarloo nguur gi ngir ñu bàyyi seen doom yi de ndax seen place du bi noonu la ko yéen kaay gii di yor yor xëy fësale ci jamono jile njiital réew Macky Sall ma ngay défendre Afrique mu jëm ci yenn xeetu euh, financement yoo xam moom lañ di jox

lañu amoon jaay ko finalement dafay mujjee dox ci loxol Sénégal njiité réew Macky Sall kon jël dogal bu ni mel gannaaw ba nga xam ne dafa sàkku ci ministre de la communique euh, ministre de la culture Aliou Sow mu dem ca barab mu dem ca France euh, gisee ñi nga xam ñoo amoon ma bët googulee waxtaan nañu ngam nag bu fi mu toll euh, njëkk li mu ngi toll ci téeméer ak juróom benn fukki million ci francs CFA yéen kaay yi nag dañuy wax lan moo làqatu kon ci ginnaaw njaay boobule noonu la ko yéenekaay gii di la peuple xëy fësale eh, tribune lam ñëw jukki la tribune dafa xëyee dellu siwaat ci satisfait maanaam mbégte ci économie bu Sénégal yéenekaay gi ne il faut que ndax naka la koom-koomu Sénégal mënee wër pëng te sénégalais ñoom yëguñu ko Sénégal tey ji la gën a sonn noonu la ko yéenekaay gii di la tribune xëy fësale ubbiteeg université yi ak calvaire gi nga xam ne sénégalais ko yéen kaay gi xëy fësale yéen kaay gi nag xëyee dellu soir ci Ousmane Sonko mi ñu ne dafa ne comment yéen kaay gi ne cooki fin bu Ousmane Sonko doon woote finalement mujjee na koy jural musiba noonu la ko yéen kaay gi di l'évidence xëyee fësale yéen kaay geneen direct news wax ci tànki nemeeku yi nga xam ni Amadou Ba doon na ko am la ci diwaanu Louga euh, ba fii waxtaan ña nga fay waxtaan ndax taxawaayu Moustapha Diop mooy li jaaxal ñëpp parce Euh, ndax sax tànki nemeeku yi mu amal ci lenn ci kilifa diine yi moom Moustapha Diop daanaka fekkewu ko gars yi daal jàpp ne est nekkul tànneefu Amadou Ba mooy di problème noonu la ko yéen a euh, dellu si fii ci biir réew yéenekaay gii di l'enquête xëy fës las euh, génn euh, jël na dogal ne lépp loo xam ne ay tere la dukkee euh, te def ko ci diwaan Touba dañ koy jëfe ma ngay sax fàttali bataaxal bi nga xam ne Serigne Abdou bind na ko procureur bu Diourbel ci atum di ko xamal daal tere yi daal moom la tere ci diwaan Touba loolu bokk na ci politique ak football noonu daal loolu bu ko gis foofu ci diwaanu Touba moo tax dal sàkku ne ci alkaati ak sandarma euh, yi euh, ñu dooleel Baye Fall yi ci liggéey boobu nga xamam lañ nekk di def noonu la ko yéene gii di bés bi le journal xëy fësale euh, fës na ci wax ci Europa League tey ji dañ ko fas yéene football Marseille ak ay AEK Athènes bu 16h45 la jota lay doon Ismaïla Ismaïla Sarr ak Iliman Ndiaye fas yéene wane seen bopp noonu la ko yéen kaay gi suñu lamb ñu mu géewal moo dulloo ne bu ah, mbër mu aay la uh-huh. mbëru Pikine yi lee noonu la ndax Modou dugg na Pikine daje fa ak Laye Bey daan ko jël bu amul benn werante dugaat Pikine mooy fas yéene yemale Modou Lo noonu na Seydina Omar ñu